ay bismillah bismillah bismillah asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu mbokk yi mbokk yi man la Mariétou fii ci Saveurs Planétaires macha allah fas yéene dellusiwaat ak yéen tey jii ci kàttanu yàlla ni ñu ko fi baaxoon di defee di leen nuyu yéen ñëpp macha allah di leen wàcc seen wàccuwaay te di leen ñaanal yàlla yiw àddina ak àllaaxira mbokk yi ah dañu am gande te taa uli dellu si na dem macha allah. tata Ouli Konaré in the house tata Ouli nuyul sa fan su saveur yi. salaamaaleykum everybody maa ngi leen di ziar bu baax. Uh-huh. namoon naa leen nag. waaye uh-huh. eh, du dara lu mooy Covid nag. Covid rek ñu toogoon rek. Uh-huh. ma ne ko waaye namoon leen lool. Mm-hmm. dellu si nag tey nag moom. Mm-hmm. daal di yegg dëkk ba. macha allah léegi yow. lan nga fas yéene may gaañ. aywa tata Ouli euh, tey daal mhm. dañuy daal di yegg Mali. incha allah ñu defar benn mafé bu simple. très bien à la malienne. à la malienne. waaw mafé à la malienne. waaw typique. merci beaucoup léegi yow sa yóbbu yaaba yi lu ñu fi ne nii. Euh, ça c'est yàpp bi. yàpp xaar la ndawal bi. mun nga am yàpp bu la ne mais euh, lii laaj la. ça c'est un peu de sunguf kànja Euh, ça c'est du net Net et tout. netetu. netetu ah. xorom poobar. Uh-huh. ça c'est du fognon. fognon lañ ko fas yéene lekk. on va manger ça avec la, du fognon. co. et ça c'est de, de, du kanja qu'on a pilé. moo wax waxal ci olof après nga soog indi anglais bi. Uh-huh. kanja bu frais la bu ñu uh-huh. wol. Euh, ça c'est euh, de la tomate fraîche. tomate fraîche bi nga jàmbale jàmbale voilà. Et ça, c'est de l'oignon avec du scallion. Euh, oignon vert. Uh-huh. et de l'oignon qu'on a uh-huh. pilé. Et ça, c'est de la pâte d'arachide. Ok, les tu des tomates Non. Tu Non. Tu des fillettes. Non. Tu des Bambara Très bien. Ah, gis ak carotte ak patate. ak Ak Très bien. Maintenant, rapidement pour la version française. Rapidement. Voilà. Donc euh, là, on va préparer aujourd'hui une sauce mafé uh-huh. et la sauce pâte d'arachide. OK. Donc euh, ça se fait avec de la viande. Mm-hmm. Ça, c'est de la viande de mouton que moi, je mm-hmm. choisis de préférence. Mm-hmm. Et euh, tu as de l'ail uh-huh. pilé, de la, la, de la poudre de, de gombo. gombo uh-huh. ça, c'est de la poudre... Tout Ouais, c'est un bambara. Oui, mais ça fait bon, rien. Je suis bambara, donc c'est du Soumbara. Voilà, Soumbara. Donc c'est du sel et du poivre, ça uh-huh. c'est du fognon, uh-huh. euh, ça c'est la pâte euh, de, du gombo euh, pilé, uh-huh. ça c'est de la tomate fraîche, des oignons et des oignons verts pilés ensemble, et de la pâte d'arachide. Et là, comme légumes, on a aubergines africaine. Oui, je mettrai des aubergines africaines, du piment, de la carotte, de la patate, des pommes de terre. Et c'est tout. Voilà. Donc, euh, euh Oli, euh, ta recette de mafé, mm on ne met pas de poisson euh, de, de poisson sec. On ne met pas de yet, les escargots. Non. Juste simple, simple. Oui. leen tey maa fait bambara la foofoo ngay toj. très bien Ouli. oui alors léegi fu ñu toll nii. léegi euh, damay baxal ndox. ndox bu tàng. Ah, da nga koy ñuluk. waaw dama koy ñuluk. ok on frit pas. non non. ok donc je mhm. mets directement la viande. Mhm. Euh, et puis je vais mettre aussi euh, la tomate fraîche mhm. et puis la pâte d'arachide comme très bien mais tu dafa gis ne <laughs> na ni Il et puis des voilà ça redevient euh, <laughs> tout petit ou Ouli. oui euh, en français rapidement. oui est euh, la euh, procédure cooking bi. donc là on a mis de l'eau à bouillir. Mhm. dans la marmite et puis mhm. j'introduis la viande à l'intérieur. ok et puis c'est par ça que je commence. et je mhm. vais mettre de la tomate fraîche. maintenant. voilà ok merci ça va cuire avec. Et puis euh, je vais mettre aussi le mélange de pâte d'arachide à l'intérieur. Voilà. voilà. Je le mets comme ça parce qu'une fois que ça va commencer à bouillir, uh-huh. ça va fondre. Ok. maintenant je vais uh-huh. mettre le sel et le poivre. Bon, mais juste un peu pour que la viande ait un bon un, un goût salé. voilà, exactement. Très bien. Voilà. pour le moment, uh-huh. on se limite à ça. Voilà exactement merci beaucoup ah très bien macha allah tata Ouli. oui dafa mel ni maafe baa ngi toqi toqi de. waaw waaw léegi commencé ñëw. léegi uh-huh. dama wàññi feu bi tuuti def ko medium. Uh-huh. Euh, feu moyen. Voilà, uh-huh. je, l'ai mis je à feu moyen. Uh-huh. Et ce que je vais faire, je vais introduire mes légumes à l'intérieur. Oh, légumes, légumes, Voilà. Donc, patate douce, nec, non. Voilà, je mets de la patate, de la uh-huh. carotte, un, peu, un, peu de. aubergine africaine, diakatou. bignon, non Exactement. Ça <laughs> m'a mon ami. Voilà. Donc, euh, voilà, <laughs> et puis voilà je vais laisser ça cuire. les soble beeg euh, laaj bi moom kañ lay ñëw. loolu après mun naa ci def laaj bi léegi. mais soble bi damay xaar tuuti. mu toqi toqi. waaw parce que daf koy gaaw faral daal. oh ok très bien te damay bañ mu dar. mu euh, ok. mu ngoog das gut foofa na. mais dafa mel ni gis naa nga teg fii tuuti ñànkatang à côté tam. Ah, waaw parce que ah, dama koy côté rek. comme bu ñuy servir à table comme mu neex ak fuñu. ku mu neex lek ko ñankatan surna man man moy xolal la ma ta tayande rek la lay wax man damay foño mhm. de nga mam di ñankatan di mburu di sos di deggal luy fas sama kanam mom xamna ne ñankatan bu la jëm muy ya, sama assistante jey ma ne na ñankatan ba déwén ah jëy très bien machallah tata Ouli oui ma ngok léegi fi mu nekk ni comme ma fa bangé gundus gundus fee léegi yaa ngi ci état bu lan foño bi wa foño bi laa ñëw defar pour wan ni ñuy ni ñu koy kiwé wa très bien euh, Uh-huh. damay ñëw mélanger fonio bi là uh-huh. j'ai mis le fonio ici uh-huh. et euh, je vais mettre un peu d'eau chaude pour comme ne booy togg cere rek boo bon tay taille ci def kii ko kaasee ko voilà exactement Mou ko exactement ok comme ni ngay def cere couscous voilà les léegi bu ma ko defee nii damay me mu reposer de suite mu ba mu mon ndox bi and then si je dois en rajouter je rajoute ba buy gu ba mu muus daal ba mu jóg ba and then ñu doog continuer à la procédure pour bomb ko ak euh,

très bien diwlin xaw a ñebbi tuuti. parce que xam nga defuñu ci diwlin boo seetloo. waaw waaw ah, diw gerte bay yeeg yàpp bi ak gerte gi. mooy nar a génnee tuuti diw. merci beaucoup c'est fini. très bien. après nag ñu nar a xool xorom si ak ñoom seen daal. co ay magoog tataawuli. oui léegi sa foño bi naan na ndox bi ba nga euh, steam ko nga tey ko ci. micro onde bi waaw dama ko tay mo mm, tooyal. bàyyi ko ba mu naan ndox bi bu baax. Mhm. léegi pour que mu gën a pen ndox bi gën ko pénétrer dama ko dugal si micro-ondes bi. Mhm. pour like cinq minutes rek. Mhm. génne ko. léegi gis ngeen ko suus na ni. ok léegi damay daal di ñëw def kànja gi pour commencer. kànja bu ñorul bi waaw kànja bu ah, ñorul bi yow kànja gi pour fii la. waaw kànja gi laay ñëw. dugal ko ci biir. léegi nag moom laa koy bombee. très bien léegi bon sungufu kànja bi bon pour sauce bi la fële. waaw sungufu kànja bi ci sauce bi la jëm. léegi lii nga koy kiiwee. voilà mu laalo ko. voilà léegi kànja bu ñorul bi soo paree noo koy def da nga koy ma ko da nga koy dugalaat si da nga koy tayaat joxaat benn tay yaa xam tayu fourneau boo ci def rek baax na waaye di nga ko tayaat pour que kànja gi mun a ñor tuuti. waaye nag il faut que kànja ko boo ko kànjawulee. Euh, guub doo ko manam dafa ko sama ko il faut nga ko très bien rapidement pour la version française voilà donc euh, le fognon se mélange euh, après une fois de l'avoir trempé dans l'eau. Mhm. Euh, dans de l'eau chaude. Voilà. Mhm. On a on l'a mis juste au micro-ondes pour 5 minutes. Mhm. Question de la mettre à la vapeur un peu que ça, oh. ça toute l'eau. Mhm. Et là maintenant, on l'a mélangé avec euh, le gombo pilé. puis le gombo, frais pilé. pilé. ok. Et euh, maintenant, c'est ce que ça nous donne. Maintenant, on remet. On va le remettre à la vapeur. Uh-huh. Moi, je le mettrai au micro-ondes uh-huh. euh, parce que ce n'est pas beaucoup. Uh-huh. Encore cinq minutes. Peut-être un 10 minutes, je dirais. 10 minutes. Voilà, pour que ça puisse un peu cuire le, le, gombo. Et voilà, c'est prêt. Merci. Si tu veux, tu peux ajouter un peu de sel à l'intérieur. Ok. Mais ça, c'est un choix. Ok. Mais nous, on laisse comme ça. Voilà, Moi, j'aime quand. Voilà. On okay. met pas de sel taaw oui machallah allah léegi fi mu ne légumes yi. waaw seppi naa légumes yi. Uh-huh. sauce bi commencé na far. Uh-huh. léegi donc damay ñëw. oh sungufu kànja bi je vais mettre la poudre de kànja. oh et puis euh, ça c'est juste pour donner un peu de de de fluide ce qui veut dire je veux que ça soit un peu gluant. ok voilà Mou gluant tout. voilà mou gluant tout. a très bien et puis dafay oyof ça se digère uh-huh. ça se digère plus facilement. très bien. si tu remarques la différence entre ce mafé et le mafé bi du Sénégal Sénégal. Uh-huh. Euh, lii da nga koy digérer rapidement. ok dafay oyof. waaw faire oyof. dafay oyof. waaw. très bien voilà donc vous on va diminuer le feu avec après diw diw voilà hmm. donc le gombo va cuire tout doucement. tout doucement petit feu et puis l'huile va sortir au-dessus. merci beaucoup. très bien donc maintenant on fait à feu doux. exactement voilà très bien. merci beaucoup. très bien. macha allah tata Oli. oui sama fenge ca ma <laughs> wëndeelu mbaay mbaay ba yëf ya toqi toqi na dégg nga maam ba gerte gi xelli li la mag ngi naan bàyyi gerte gi xelli waaw góore waay yàpp yu ñor na ba ni yuréet sey kay gis na ne fi dafa melni ni ñankatang la séné mo moo nami waaw ñankatang ni ni di euh, foño bi la très bien là tu as la viande et puis les légumes oh laa ma beral la tout ci ñeex bi rek sama copain kani. Yalla sa jamm yàgg ne ma ma amin ma amin très bien fofu nga tek man legi li man buma koy lek sama mo limon lay tek à côté rek ndax dama xam dama ci naru sori duma ci démé ndank. ah Woy. <laughs> Ah, Dess na ci yow rek bu la hmm. nexé nga def ci li mo. très bien bi xawna na forox balaa nga def mo mosal ba Ma sha allah wala quwwata illa billah léegi taaw Taouli. oui euh, rapidement rek ana ñan nga fas yéene yekkal tey coox ci sa maafe bambara bi maa ngi xam man. maafe bambara bi nag tey ma cee yekkal toute la famille Konaré. toute la famille Konaré. waaw naree sa jàmm ay chéri yi ñu lay sekkeen les sekkeen. waaw waa sekkeen ah, ana ngeen. spécialement Kader moom mooy sa chéri Kader Seck. narees ak jàmm macha allah macha allah. mbokk yi di wax na lii lañ leen indiloon tey fii ci saveur planétaire macha allah tata Ouli génnee fa ñëw indil ñu version maafe bambaraam moom tamit mu simple bu bëgg dee kër gu ubbalewu ràpp ndetetu bay boroosu ndànk noonu rek di glissé. fii ci saveur planétaire di leen ñaan la baraamu kaw sela la wiccax mu yéeg la baraamu suuf sela la fente bu ko defee foofa daal di xalangu.